salaamaaleykum mbokku xarit yeeg internetu lu bees TV gannaaw ba nu sante yàlla jullu ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed alayhi salaatu salaam yéen a ngi seen biir émission wu yoonu gàmm comme ni leen ko waxee woon rek ba tey rek ñiy daal di wéyal li nga xamante ni ni euh, moom mooy waxtaan bi ci bés bu sell bi yegg si nañ ci bés bi nga xamante ni moom la ñuy màggal euh, di guddi bi yaa rasulullahi Mamadou ñun nag wàllu bés TV dinañ fas yéene dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dal yi fas yéene waxtaan ak ñoom ci bés bi bu ko defee sama caméraman la daf may daal di topp rek incha allah ñu wéyal liggéey bi merci beaucoup. mbokk yeeg xarit internet Lou'Bess TV comme ni leen ko waxee woon rek indi seen biir émission yoonu gàmmu bu ko defee rek dañuy daal di rek fa seen waxtaan salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. tur bi Matar Diouf la. Euh, nekk fii si dal bu ñuy woowee Team Paradise. groupe bi nag ñu ngi jógee ba Sendou. Team Paradise de Sendou lañ koy woowee nekk si la commune de Sendou. nekk si département de Rufisque waaye la région de Dakar. mën nga ñu wax rek dal bi kañ rek ngeen ko daal di sañ. waaw dal bi ñu ngi ko sanc depuis 2009 jusqu'à 2024 cette année. mën ngeen ñu wax rek naka ngeen di organiser waaw ñun nag li ñu am habitude nu nous vivons en communauté c'est-à-dire que ñun la communauté Lébu dañoo am habitude bu ñuy dund dañuy dundaloo ñun ñëpp. moo xam jigéen ñi ngay gis ñu def tenue yu rafet yi macha allah ñoom dañuy cotiser seen biir def seen tour ñun góor ñi aussi la même chose dañuy def ay tour di natt chaque année chaque semaine dañuy nat cotiser. ku matalul mu mottali bu jugee si loolu bu weer wi jegesee dañ koy teeru niñ koy teeroo mooy képp koo xamante ne nii tey yaa ngi liggéey da ngay indi sa participation loolu la ñuy globaliser moom la ñuy organiser lu rafet li macha allah. mën ngeen ñu wax naka ngeen fas yéene bernde la ñi nga xamante ñoom ñooy gan. waaw bernde yi moom comme ni nga koy gisee rek li wolof di wax rek lu ni fàng kenn du ko jeex en même temps aussi tungu ne du teew ñuy nataal yaa ko sa bopp macha allah suy xale yu jugee ni defar comme ni ma la ko waxee rek génn nañu tous les moyens qu'on pour organiser pour organiser ça et c'est important loolu rek defee dañ koo def ngir juddug Seydina Muhammad ndax suñu maam Seydi Hadji Malick da koo bañ ba ba muy commencé dafa sant yàlla d'abord avant muy dugg si yonent bi parce que ba muy ibbi xilaasu zahab dafa wax ne alhamdulilahi sant yàlla zil ijaadi wal hidami mu muy dinaa fil wujudil bahri zil hadami te loolu dafa nekk loo xamante nit buy tëj si lay sant yàlla moo tax wolof day wax ni nañu commencé si bismillahi rahmaani rahim yeggalee ci alhamdulilahi rabil alamin donc Seydi Hadji Malick bu commencé commencé alhamdulilahi alamin kon dafa fekk commencé woon na bu yàgg loolu rek moo tax ñun dañuy sant yàlla rek di wax alhamdulilahi rabil alamin di kontaan si bés bi torop torop bu ñëwee dañuy ànd ak fierté am motivation ànd ak énergie boo xamante ne sans faille duñ sonn macha allah. mën waaw message bi ñuy laase mooy li ñuy wax toute la jeunesse sénégalaise mooy ñu gën a lu si diine l'islam en premier. parce que ñun amuñu dara dara dara dara lu dul yonent bi rawatina maam Cheikh Seydi Hadji te Tiwaawan fii ñun bu fi ñëwee bu ni ngay gis ñu koy dundee noonu rek lañ koy defee chaque année dañuy organiser wu mel ni benn famille li ngay gis nii depuis 15 ans ñu ngi koy organiser te at mu ñëw daa xamante des donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu gudd fan ak wér. ñuy sant nag bu baax a baax a baax waa kër gi rawatina mère Fama mère Fama Team Paradise wax nañ ni amuñu fayam dañ koo jàppee comme suñ yaay juñ jur bu loolu weesoo ñu teg si xale bee ngay gis muy Ami Collé maa ngi koy tooñ sànq ku am taxawaay la Ami Collé ku baax la ku yaatu la mosuñoo ñëw fii ba gis fi lu ñu naxari depuis ñu nekk fi 15 ans ba léegi ba ñuy ñëw fii en 2009 boobu man mii toog nii di wax ak yow Moi, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ce qui veut dire qu'on a vécu pas mal de choses. dañuy santat yàlla rek di julliwaat si yonent bi di wax ni ñi ngay gis ni ñëpp depuis le bas âge ba tey fi may wax yow ñooy ànd dara mosul ñaaw rafet na lool bu mu doon lim fii du ma jeexal waaye ñoom ñëpp man mi ngay porte parole rek la ñiy diriger groupe bi ñu ngi nee toog kon boo leen joxoon parol li may wax ni mën nañoo wax lu ko raw ndax ñoo ma gën a mën a wax mais yàlla bi nga ñëwee ñoom ñoo ne joxal kee mu wax te loolu rek sant yàlla la bu loolu weesoo damay wax ni sam papa chaque jour dañuy wax ni ak lu mën a am oto bu ngeen ko bokkee bu defee 42 places même bu yebee 42 chauffeur benn chauffeur moo mën a dawal loolu moo moo waral ñoom ñu jël seen ay parole jox ma ko ma nekk le porte parole c'est c'est un parole qu'on porte porté une parole la ko qu'on a porté j'ai porté leur parole kon nag maa leen di sant di leen gërëm di wax ne alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sant ngërëm ñeel na ko ndax wax nga fi kàddu yi am solo ñu ngi ñaan yàlla sunu borom rek defal nu jàmm ak salaam merci beaucoup.